honorable yëg nga ko ki nga xam ne moom mooy Yaya Sow nekk ak yow fële ci Koungheul yéen ñaar ngeen nekk fa ay député moom mu def démb sorti par rapport ak renouvellement bi nga xam ne am na assemblée nationale ñu changé ñenn ñi indi ñeneen moom mu gis ni euh, doxalin boo xam ne rafetluwu ko dem sax ba indexé président Macky Sall euh, moom moo nekk depuis buñ ko falaatee di. di di génne ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom depuis le début di teg ay transhumants yow nga nekk ak moom foofu loolu est-ce que du du ngeen waxtaanee yéen ñaar la moom mu euh, yanu kàddu gi. maa ngi lay nuyu baay di nuyu waa Sénégal yëpp mais di féliciter aussi son excellence président de la république ci bureau bi nga xam ne teg nañ ko demb assemblée ma koy rafetlu bu baax a baax te di kontaan ci ni ko defee. parce que bu ñu fàttee ne président dañu ko fal première mandat li tax ñu koy fal mooy dafa indi woon programme bu leer sénégalais gis ci seen bopp votel ko mu nekk président mu soxlawaat aussi deuxième mandat laajaat ñu jox ko ko parce que biñ ko koy jox wax dëgg yàlla gis nañ li fi def gis nañ aussi fi réew mi toll ak li mu yéene ñi koy félicité beneen yoon parce que dañu ko fal ci sept ans mu wàññi ko ne juróomi at la koy def te loolu mu ngi fiy door a am kon su ko defee vraiment duñ def lu dul rafetlu ko tey nag ñi xam ne président moom la askan bi wóolu jox ko majorité assemblée nationale kon su toogee jël bureau proposé benn bureau man Fanta la du ma def lu dul rafetlu ko parce que nag wax dëgg yàlla président foog naa li ñu ko war a laaj mooy li nga xam ne askan bi moo moo tax ñu dénk ko réew mi te it nag foog naa li tax ñi denk ko réew mi mu ngi ci kon nag man ñëwuma assemblée ànduma ak président di ko mere ci dafa ma war a dugal ci bureau wala dafa war a dugal kii ci biiro man président li tax ma ànd ak moom dama ànd ak moom dëkk bi ma dëkk muy Saalum ñu gis seen bopp ci président mu def fa loo xamante ni benn président munu mosu ko fa def kon loolu moo tax ñun lu mu proposé si bureau ñun dañuy ànd ak moom te di gën a feddali aussi suñu engagement si moom ndax it nag dëkk lañ jugee man président bu bu ma toogee waa Koungheul di ma dégg may mer ci affaire bureau assemblée foog naa dineen ma mere te it nag ñi bañ a fàtte ne daf ñu tànn ci nit ñu bari ci Koungheul tànnuñu parce que ñoo fa gën xëy na la tax mu tànn ñu indi ñu assemblée moom moo ko xam la tax mu def bureau bi aussi moo ko xam man daal personnellement Fanta man kontaan naa ci loolu te dinaa ko gunge te dinaa ko jàppale lépp loo xam ne mun naa ko ci projet moo mun ko yeggalee. kon daal su ma la déggee Fanta mooy yow euh, sa naataango boobu loolu mu wax yow engagé wu ci dara. loolu moom la engagé man engagé wu ma parce que ànduma ak président parce que daf ma war a dugal ci bureau. dama ànd ak moom parce que dafa am yéene ci réew mi ànd ak moom parce que dafa am vision bu leer ànd moom Saalum bi ma dëkk dañoo gis seen bopp ci moom mu jàppale leen ci bërëbu fajukaay kon kooku dineen ko jàppale ngir mu mun ñoo dolli mais mu jàppale leen parce que piste yu bari yoo xamante ni amoon na problème yu ci bari réalisé na ko am na ci yoo xam ne am na yéene pour defar ko kon man kooku dama koy gunge ngir askan bi nga xamante ni ñoo tax ma représente askan ma nekk assemblée aussi est-ce que du ngeen permettre aussi ay député yoo xam ne ay population ñoo leen fal ngeen bàyyi leen boo ñu amee seen ay naqar wala ñu am seen ay euh, kàddu yoo xam bëgg nañ koy yëkkati mais ñu yëkkati ko en toute démocratie pourquoi aussi yéen on sent qu'on de vous da ngeen ni bëgg museler ay nit parce que juste ànduñu ak seen ay position Yaya saw war na am xalaatam wax ko sans problème. loolu moom ñu dañ ci ànd nit ku nekk wax dëgg yàlla boo amee sa xalaat da koy wax loolu moo tax aussi man ngeen laaj ma ma wax sama xalaat. parce que ku nekk ak ni nga gisee mais ñun dañ fa nekk pour askan bi mais nekk fa ngir soxla yi nga xamante ni suñu département ñun ñu koy diis ñu koy wax tey nag ñi ngi sant yàlla gis nañ ne am na ci yu bari yoo xam ne mi ngi faju kon nag dinañ jàppale président mag Sall ba nga xamante ni tey dëkk bi ñuy jógee macha allah tey dinañ gën a sant yàlla bu baax a baax.